ناجيتو بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جاولي سرج بابا نانا ناجيتو بيا نسير يا ولي كفيتني إبليس عند جاولي أيسمني الله عند جاولي إبليس إسناديت بيا ولي أيسمني الله عند جاولي إبليس إسناديت بيا ولي waaw ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay bu baax a baax ak ak sa caméraman yi nga àndal waaw ñu ngi leen fay di leen siyaar bu wér ci màggal Tuubaa bi ñu nekk nii macha allah nga daan ko def defati ko ñu fekkati la ci kër sëñ Mourtala Saliou caatum sëriñ Saliou sa sang bi nga xam ne moom nga yaakaar àdduna ak alaxira euh, ba loo am rek moom nga koy yéene euh, teraange gi nga doon def nga ñëw defati ko tey. waaw dañuy sant rek jërëjëf sëriñ Touba parce que mooy li may wax rek di ko waxaat ñun amuñu lu jul sëñ Mourtala Saliou Mbacké waaw moo tax mooy li may wax tey wax naa ci wax bu gàttal ne su ma sañoon màggal di son sag weer parce que li may jëf di ko jëf. waaw man am lul sëñ Moutala waaw te jëf gi may jëf waaw moom tànk xolam mi ngi ci sedd rek man dama ci am yëg-yëg yëg-yëg bu fees sama xol parce que àdduna nit ki sooy jëfal sa kilifa mu di ko gis ci bëtam di ko ràññee di ko yëg ci xolam yoo sa xol day daal di sedd waaw te nee na ma bu abul ragal dara bul tiit dara waaw Serigne Touba gis na li ngay jëf te nangu na ko. loolu rek sama xol tey yëg-yëg yi moom dafa fees parce que li mu wax dafa rëy nee na ma sëñ tubaa gis na jëf ji te nangu na ko kon yaakaar naa ne kon liñ ci jublu woon daanaka am nañ ko di ñaan yàlla rek di ko mën saa su ne sëñ yàlla di ñu dooleel ñu mën di liggéeyal sëriñ tubaa di liggéeyal sëñ mu Moutala Saliou parce que amuñu ku dul sëñ Moutala Saliou moo tax suñ sañoon yàlla gën a yokk xéwal gën a yokk mën gi waaw parce que lii nii ñuy def nii xeeb nañ ko. ba suñ jëfee rek fàtte nañ ñi ngi liggéeyal màggal déwén comme ni ma koy waxee waaw bëgg nañ daal saa su ne rek lépp lu ñu jëf rek su déwénee mu gën a yokk waaw loolu mooy suñu yéene ci sëñ Moutalla Saliou waaw. ñu gis ne boo jàkkaarloo sang bi day am aal booy am wala yëg-yëg booy am lan ngay yëg. waaw xam nga mooy li may wax xam nga mooy li may wax rek am na yoo xam ne mënu ma koo wax parce que su ma jàkkaarlook sëñ bi day def ci man loo xam ne. day mel ni dafa may daf may am lu may sol damay yëg yoo xam ne ni sama biir xol ak sama biir yaram li may yëg nee naa leen ci màggal rek laa ko mën a yëg li may yëg suma ma jàkkaarloog sëñ bi ci màggal Touba rek koy yëg moo tax ma xam ne ci lay defaree jaami moo tax moom ci màggal Touba lay defaree jaam moo tax ba may ànd ak moom mënu ma woon lii benn laa commencé ba tey may def lii kon yaakaar naa ne sëñ Moutalla Saliou yoonu murit mooy li may amul tànk ginnaaw tànk kanam rek laa am. te dañoo fas yéene doon Baye Fallam fas ne liggéeyal ko ni nga xam ne noonu la Cheikh Béthio meloon ak sëñ Saliou ñun ci tànk boobu lañ bëgg a taxawee ak sëñ waaw ñu ngi ñaan sëñ Touba dooleel ñu bañ mën a egg fañ jëm. gis ne booy ñëw da ngay daal di ànd ak sa famille ñu dar la macha allah sa yaay nekk sa ginnaaw ah, sa ñaari soxna nekk sa ginnaaw. waaw xam nga àdduna moom nit moom euh, lii moom dafa neex ci xol parce que lii moom mooy yëg-yëg moo lay dooleel parce que tey. su ma njab sama famille samay soxna samay waajur samay am du jàmm su may xarit samay dëkkandoo su ma chaque fois may ñëw tubaa ñoom ñoo may topp ñoo may jàppale taxaw suma ginnaaw dooleel ma ba nga xam ne tey mbégte bi mënu ma am lu dul mbégte mënu ma am mbégte bu ko gën a rëy ba moo tax ma leen di ñaanal ñoom ñëpp yàlla na leen Serigne Touba fay man aw ma fay parce que defuma lu tax ñu topp ma wala ñu may def nii mais nag dama leen di bàyyi ak Serigne Touba rek moom mi mu bësam mu fayal ma leen. parce que sëñ Touba moom nee na sama bés moom man maa koy fayal sama bopp kon nag damay ñaan sëñ Touba mu fayal ma leen waaw kontaan naa trop macha allah di gërëm ñëpp di gërëm sama famille di gërëm Serigne Moutala Saliou di gërëm képp ku nga xam ne rek ànd nga ak man ñëw màggal si maa ngi lay ñaanal tawféex ak yokkute ba yëkku ci barki borom Touba jërëjëf. soxna sëñ bi seex bi la ñuy wax ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. nga ànd ak sa borom kër ànd ak sa mag mu di Kewé ngeen gunge ko ci teraanga gi nga xam ne moom lay indil ki nga xam ne moo di sëñ Mourtala Saliou ci atum Serigne Saliou lan nga ciy wax. waaw ñun saa su ne dañuy am mbégte rek ak kontante bu ñuy jëf lii wax dëgg yàlla e, ba ñuy tàmbali tàmbalewuñ wuñ lii ñun ak sëñ bi ñun ak sëñ bi dañuy ñaan yàlla rek mu gën a yokk ñu gën ko mën chaque année muy gën di yokk waaw sang bi nag dama koy ñaanal moo xam li bëgg. ci yoonu Serigne Touba gi yàlla na ko ci yàlla defal jàmm yàlla na am jàmm te yàgg di mën lii waaw. sa ngeen a ànd naa mëneewul wax. waaw mëneewul wax man mii di wax ak yéen sax man mëneewu ma wax waaw xam nga rek boo amee ay xarit ah foo jaar am noo def waaw ànd ànd ak ay mbooloo foo jaar sant leen gërëm leen ñoo xamante ne dañoo bàyyi seen i yitte jógee ba dakaar ànd ak yow ah say collègue de service. say mboq sa say dëkkandoo ñëpp ànd ak yow ci sa bés bi ñëw dooleel la waaw ñun dañ leen di sant di leen gërëm maa ngi gërëm sama goro ñi ñu àndal ñëpp ñoo ngi leen di gërëm rafet na trop taxawaay bi rafet na chaque année day yokk mbooloo mi chaque année day yokk macha allah dañ doon indi benn bus ren ñaari bus moo ñu topp macha allah ñoo ngi ñaan mu gën a yokk ba ñuy indi ay bus bus bus xew kii bi teraanga gii ñuy indi fii mu gën a yokk ñuy indi ay camion kamio ba nga xam ne kër bi ku fi ñëw ku nekk. gis suñuy eh, ak lépp. macha allah maa ngi leen di jaajëfal man tamit kontaan naa ci yéen. naa bi yaa nasiiru yaa wali kafaytani إبليس عند جاولي أيسمن الله عند جاولي إبليس إسناديت بيا ولي أيسمن الله عند جاولي إبليس إسناديت بيا ولي